internet AG PROD yi ñuy amaat contentement ak mbégte di ñëwaat ak yéen seen information du jour tey nag dañ koy rek daal di doore ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Pawlish Mbaye mi nga xamante ni rek daal dina amoon euh, jafe wala sax euh, problème ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Cheikh Ahmed Cissé mi nga xam ni dafay rek daal di yëngatu ci lu jëm ci ay wàllu ñaan gannaaw rek ba nga xamante ni moom Pawlish Mbaye daal dinañ koy invité rek ci programme naka noonu ñu daal cay invité ki nga xam ni mooy Serigne Cheikh Ahmed Cissé ñoom ñaar nag ban daje rek ca jotaay boobu lee ki nga xam ni moom mooy Cheikh Ahmed Cissé daal di xam na ne rek. Pawlish Mbaye kat eh, warul ñëw ci jataay bi ndax jataay bu ni eh, waxtaanee diine eh, yoonu Pawlish mbay rek daal di cay daal di nekk ca noona nag ka nga xam ni Pawlish Mbaye nag daal koy rek daal di joxoñ moom mi di Cheikh Ahmed Cissé xamal ko ni ko nag joxoñ boobu lay day da nga ci am li nga xam ni moom moo di le problème moom Cheikh Ahmed Cissé moomu nag daal di xam ni rek daal di xam na ni rek moom Pawlish Mbaye moo meelee ñetti fan rek la ko daal di may su fekkente ni maanaam amul benn jafe-jafe moom bi nga xam ni moom mooy Cheikh Ahmed Cissé di yëngu ci wàllum ñaan ak yu ni mel ah, dina rek daal di tekki ay téeréem daal di xam ni moom nekkul dara donc nag ki nga xam ni moom mooy Cheikh Ahmed Cissé ah, moom moo di daal di xamle lu mel noonu waaye nag ah, ki nga xam ni moom moo di Pawlish Mbaye moom it nag daal koy rek feelu ca wet ga daal koy xamal ni man ragaluma ma Demba ragaluma ma Samba su may ragal rek kenn rek laa war a ragal muy yàlla suñu borom moom Pawlish mbay moomee nag kàddu yooyu rek daal di yëkkali daal koy jëmale rek ci ki nga xamante si moom mooy Cheikh Ahmed Cissé ci naka noonu moom Pawlish mbay nag ñenn ci suñuy naataangooy rek daal nañ koy fekk ci génn kër euh, mu nekkoon ci ab xaritam la wax euh, ki nga xam ne moom moo di ab maara la euh, ñu daal di laaj rek mu daal di xam ne ni ñëw gi ma ñëw fii du caag ni rek dama fay ñëw ngir Cheikh Ahmed Cissé. dafa fekk ni rek man damay yëngu ci li nga xam ni moom mooy showbiz bi ma siiw aussi tamit ba pare ma daal di xew moo tax rek ma fi daal di ñëw te samit sama xarit la am na droit daal di ñaan lu sangatu mu ngir rek mën a aat sama bopp waaye ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ahmed Cissé moo tax ma daal di fiy ñëw ndax moom taxumaa jóg yëngaluma tiitaluma ay waxamit maanaam lijjantiwuma ko te sax nag dama ko faalewule moom Pawlish Mbaye nag daal di xam ne nii maanaam bu fekkente ni moom suma ma dara jotulee ah, dina rek tekki ay téeréem wala mu bàyyi li mu doon wala mu weddi li mu doon ah, ma xam ni rek kon moom dina ko rek daal di eh, def ah, ci naka noonu nag dañuy jàll rek ca li nga xamante ni ñoom ñooy artiste ba tey eh, fële ca diwaanu Thiès eh, gannaaw ba nga xamante ni kii di Lamine Ndiaye artiste comédien bu mag boobeelee Euh, génn na rek euh, daal di def benn révélation jëmale ko ci waa troupe Soleil Levant ba nga xam ni euh, fala la ñoom Sané ak ñoom Aziz ak ñoom Zozo ñu ni mel daal di nekk rek moom nag nga xam ne moom mooy Lamine Ndiaye daal di xam ne rek gannaaw ba ñu seqee ak ñoom benn liggéey lu jëm ci wàllub série fayuñu ko nag la nga xam ne des ni rek moom mooy xaalisam boobeele moom Lamine Ndiaye nag daal di koy naqarlu bu baax a baax a baax daal di xam ne rek man nag séntu woon naa leen fu ne ndax yaakaaroon naa ne su ma seqee ak ñoom liggéey rek daan doon ma euh, joxe suma alal ndax maanaam ci jàmm ak salaam rek lañ seq ndax dañu ko ndekkoon a seq euh, mu jaar ci yoon kon suñ ko seqaatee rek waroon naa gën a mën a mën a rafet ba tey rek ñu des ci li nga xam ne moom mooy troupe soleil boobu le mu mel ni jamono ji nag euh, wax ji bari na ca torop ndax gannaaw bi nga xam ni Lamine Ndiaye daal dina génn rek def sorteem boobu lee ki nga xam ni moom mooy Vieux Ba nekkoon foofu ca groupe xam ci Mbaye Warax moom it daal dina génn def révélation bu ni mel xam la ni eh, ñii di waa Soleil Levant kat ñoom it dañ koo yoreel xaalis ndax lu jëm ci li nga xam ni moom moo di lee eh, wiiri wiirin eh, tuuti rek la ca daal di mos waaye seen série bi di suwa ban ko tourné ba fii ñu toll nii suñ jamonoy tey jii amul benn dërëm boo xam ne rek daal nañ ko ko ci daal di jox nax nag moom nee na ku fekkee ni maanaam te ñoo nekk di def leneen ak lu ñu mel nañ ko ko wax te ñu jox ko li nga xam ni moom moo leen bi lay xaalisam naka noonu nag ki nga xam ne rek moom moo di euh, Vieux Bane loolu rek la daal di xam le xam ni nag euh, bu fekkente ne dañoo nekk di liggéey rek nañ ko teg ci li nga xamante si moom mooy yoon gannaaw ba Lamine Ndiaye génnee def révélation bu ni di Mbaye Warax di Vieux Ba euh, moom it daal dina ni mel xamel ni maanaam dafa seq ak waa Soleil Levant liggéey te ko ba tax na sax ji mu nga fële nga xamante si moom mooy ca polygame ndax moom mooy Messi itam ko polygame mooy Paris te ki nga xamante si moom mooy Kébé boobee nekk li nga xam ne moom mooy seen producteur boobee lee daf leen a teg ci ay conditions yoo xam ni euh, conditions yu ama am solo la ba tax na daal gëmul ni dina delluwaat fa nga xam ne moom mooy ci soleil levant wala boog bu fekkente ni dafa jóge ci li nga xam ne mooy polygame rek buñ koy dégg dañuy dégg ni tukki na mu ngi ci leneen waaye du li nga xam ne moom mooy euh, ca wiiri wiiri wala ca li nga xam ni moom mooy ay waa soleil levant ca tàggat yaram la ni daal di dugg rek ca nga xam ne des ni moom mooy l'international sénégalais boobu di Pape Gueye di milieu terrain sénégalais boobu nekk fële ca Marseille mu def acte bu ama am solo gannaaw ba nga xam ni rek ca village natalam bële di Léona nekk fa nga xam ni moom mooy ca watu Louga mu daal rek jël ay don ay matériels yu ama am solo daal di koy may rek ñi nga xam ni moom mooy waa école ba daal leen koy jox ngir xale yi rek mën ci jariñoo muy ay matériels yoo xam ne des ni dafa jëm ci wàllum euh, informatique mu daal koy rek rek don bu am am solo mu jox leen ko ñoom nga xam ni euh, ñooy waa école boobee lee ngir rek élèves yi daal ci mën a euh, jariñoo ñu nemmeeku ñu nag moom Pape Gueye moomee lee moom it dafa nekk ci euh, tànk yi nga xam ne daanaka moom la Sadio Mané nekk rek ak ñeneen i moromam ngir rek def li nga xam ni moom mooy sociale ak lu ni mel kon nag gis ngeen ni lu am am solo la bu nu jógee ci euh, Pape Gueye rek euh, dañuy daal di jàll ci ka nga xam ni rek euh, moom mooy Kalidou Koulibaly nga xam ni moom mooy défenseur centrale bu Sénégal boobee lee daal di nekk rek fa nga xam ni moom mooy ca diwaanu bu. Mm, Chelsea dafa évoluer moom nag Koulibaly moom lay umpale wala ni jamono ji dafa nekkoon ci blessure euh, la nga xam ni moom mooy genou ba ci la amoon rek euh, blessure ba tax na sax euh, seen match bi jàll doxoon ci digganteem ak ñoom ak Manchester City daal du rek bokk ci la nga xam ni mooy boobee lee match moom nag ki nga xam ni moom mooy Kalidou Koulibaly gars yi ba tey nag nekkul ni rek dafa wér waaye ba tey blessure bi moo wéy rek di dox ndaxte ji ci lënd ji ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Chelsea rek daal dinañu amal entraînement concrètement waaye moom mi di Koulibaly di défenseur central boobu lee bu Sénégal nekk fa la ca euh, Chelsea nekkul ni daal di ñëw na ca la nga xam ni moom mooy euh, entraitement boobelee dafa absenté mooy waral rek nii kon ba tey mu ngi ci li nga xam ne moom mooy blessure am boobelee ba tax na sax suba danoo am match bu ñu war a def incha allah bu ci yàlla àndee rek te ñoom ñoo war a génn sax fekk équipe ba nga xam ne ñoom la ñuy dajal waaye nag kii di Koulibaly mën nañu jàpp rek ni du bokk ci boobu les match ndax blessure am bii nag nga xam ni moom la daal di amee rek moo koy daal di waral dañ koy rek ñaanal mu am bon daal di wér rek ci jàmm ak salaam ndax mooy sunu njariñ mooy njariñam waaye nag mooy njariñu aussi Sénégal ndax ñu ngi jub li nga xam ne moom mooy coupe du monde bi kon loolu mooy li gënoon a fës ci xibaar yi di leen jox dig daje incha allah ba beneen yoon.